Gana bi président Macky Sall tané mu nek té de liste Benno Bokk yakar fi ci commune bu Wakhinane nimzat wa mouvement élèves étudiant républicain ak ndawi grande majorité amal nañu dibeer gi assemblée générale ngir feddali sen colère ak Racine Talla ak remercier njitu réew mi ci choix bi mu def. di leen wax ni élection yi da am ci ci laxasu bu bëri non seulement tay Sénégal soxla na politique publique yi nga xamante ni dañ koy def au niveau national ñu gën ko wacc ci terrain mais également dafa tombé ak benn mode de scrutin bu inédit boo xamante ni tête de liste majoritaire bu xasee ba gàll mooy doon maire donc loolu dañuy exiger ñun parti politique gën a gën a performance ci suñu choix loolu tax ndaw yi mouvement élèves étudiants républicain yi nga xamante ni dëgg nañ ci wax naan ñu sax lëkkaloo ndaw yi nga xamante ni bokk nañ ci grande majorité bi di sant di gërëm le président de la république ci choix bi nga xamante ni porté na ko ci maire Racine Talla parce que monsieur le maire Racine Talla wax ci liggéeyam affaire de la ci ngi koy si la ci moom Racine mi ngi sàkku ci moom ngir ñu gëstu ndaw ñi te ñu boole leen ci bi ñuy defar liste électorale yi ndax ñu mën a bokk.

suma ma reconduire esprit d'équipe daf ma mais <laughs> ñi ma équipe équipe la jox ko mais jeune dafa am ñii ñu ngi jàng ñii jàng nañu ba ñun dañu créer ci biir mairie dans le cadre de la fonction publique locale division boo formation lay microcrédit ak accompagner les jeunes. moo tax ni ko waxee ñun incha suñu paree suñu liste ba déggoo ko programme bi ñuy tabax programme inclusif la du maire mooy toog nii rek ak groupe defar programme dinañ def un boo xam ni ñaari jour la wala benn jour bu mat nga xam ni pour programme boo xam ni ñun ñëpp ci d'accord te incha allah ci géejawaay élèves étudiants de Wakhinane Nimzatt seront les plus gâtés et pour ça je m'engage. Je m'engage solennellement devant vous et aujourd'hui